kaddu ils ont fait une erreur normalement de communication ak yooyu parce que au lieu ñu wax programme ñoom ils étaient là peut-être à insulter les gens à nangam ak nangam mais kat moo ci dem retraite fu mu toll. xam nga Amadou Ba par exemple. moo ci mën a génn. xam nga Amadou Ba par dañ koy euh, damaa gis benn tey titre journal boo xamante ni daa mel li ma wax li ma doon xalaat la wax mooy Amadou Ba n'a pas statut de amul statut bu mu yaakaar ne moom la am. maanaam xam nga dañu naan tu le patron que tu penses être. waaye mm-hmm. il n' pas le le l'opposant qu'il pense être. le chef de l'opposition voilà qu'il pense être il ne l'est pas. parce que pourquoi je dis il ne l'est pas mooy su doon wax ci yow la su doon wax ci yow la da raw Macky Sall su doon yow la dangay ngay raw waxuma da ngay raw opposition bi mais da raw Macky Sall. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi da jàpp ne Macky Sall ak. retour am mun na nekk une manière de régler une question question boo xamante nii day régler est-ce que Amadou Ba lu ñu amoon ci 32 pour cent xaw ñaata la ñu amoon ñun bennoo Amadou Ba bu demee ndax man maa tax ñu gagné wala Amadou Ba la. Mhm. ne élection yi bu mu ñëwee am nga confirmation ne Amadou pour centage yooyu nu am du moom moo tax ñu am ko du moom moo tax ñu am ko bu doon moom moo tax ñu am ko dafay raw mag Macky Sall donc Macky est venu pour régler une question de man ak yow kan la. Mhm. et waa ñooñu xam nañ entre Macky et Ba c' est Macky nag maanaam coow li du Amadou Ba mais Macky la. Mhm. parce que quand euh, Amadou Ba mu doon créer une nouvelle responsabilité alors cette création de nouvelle responsabilité ne lui a pas permis d' être deuxième. Mm donc politiquement Macky Sall moo gën a pare. politiquement moo la gën a pare léegi nag booy xool retraite nga dajale PDS. dajale Macky Sall ak ñu mu am mënoo leen am vingt député y a un souci léegi nag Amadou Ba euh, puisque moom tamit dafa bëgg a nekk opposant mhm. boo xamante ni da nga jàpp ne yow yaay numéro yaay tête de l'opposition yaay le chef de l'opposition mhm. mais chef de l'opposition du wax kese mhm. maanaam da ko wax parce que jàpp nga ne résultat bi nga am moo tax nga doon ko mais résultat boobu du yow yaa ko liggéey ah tu n'es pas le seul dans dans dans la création de ce résultat résultat boobu dañ koo liggéey mu am à travers une machine ñu dee koy un appareil politique bu tudd. Mhm. boo ko Yaakaar et cet appareil politique là il n'existe pas et quand bu mu commencé tasaare bu ñu demee ci élection gis nañ ne bon boo yow bu doon da nga fi nga fi nga jëmee élection législative yi bu doon loolu nga demee élection présidentielle donc doo nekk. deuxième day nekk le leader de l'opposition mmh. donc foofu kon mën nga remettre en cause même le statut du chef de de l'opposition bu dee da nga ko ci résultat présidentiel yu mu yi parce que résultat après élection yi résultat bi démentir na ne yow concrètement mënoo nekk leader de l'opposition si mhm. tu l'étais t'allais vraiment hein, être deuxième et battre Macky Sall pour qu'il soit le troisième et tel mhm. n'est le cas Mm-hmm. et là c'est également c'est un problème parce que wa Macky moom il a coalisé avec Ablaye Wade mm-hmm. ak Idrissa Seck mm-hmm. ñoom trois ñu xam leen ci politique ñu daan leen Idrissa Seck bon politiquement je dirais pas qu'il mais sorewu fa parce que Idi politiquement déggatoo ko ci benn coow déggoo ko à coowal bañ a dugub ba <laughs> <laughs> ci bëj dugub bële. déggoo ko tey <laughs> élection na fi présidentielle lu gën a fort. Mhm. di soog mu def meeting maanaam ñii sénégalais yi ñii seetaan sax nañ la fàttali rek fan lañ tase ak caravane Idrissa Seck ci élection présidentielle mhm. nañ la fàttali man fàttali ko fi ma tase ak moom un jour daal gis naa ko te RTS. Mhm. ma gis ko Soumbédioune te Idi ku ko xam nu mu doon campagne ci élection présidentielle. non Idi dafa découragé. dafa découragé. découragé wala dafa bàyyi. waaw bon bàyyi mooy yaa ngi woo Sénégal yi mooy jamono ji mooy euh, su doon euh, artistes yi lu ñuy wax mooy man amatuma li ma leen di wax wax naa li ma leen di wax yëpp kon damay damay damay damay def lu tuddee. Mhm. comme maanaam replay. maanaam woy naa lépp comme Youssou xam nga mhm. Youssou woy na lépp. Mhm. Ah, <laughs> day def. day def pour ay pour pour yi. waaw lépp mu Idi aussi wax na lépp Sénégalais yi waaye terewul Sénégalais yi nee nañ ko déedéet. na léegi moom xam na ko moo tax élection bi sonn ci génnewul alal ju bëri. parce que boo ko génnee da ngay yàq sa xaalis. Mm-hmm. gars yi duñ la wotal duñ la topp. la preuve fi ngay xamee ne moom daa mel ni dafa dem retraite politique parce que bëgguma décider li moom laay décider retraite tam. Mm-hmm. mais ñu bëri cadre yi mu àndaloon dañ ko baax. Mm-hmm. Abdourahmane Diouf fa la nekkoon. Thierno Bocoum fa la nekkoon. Tahirou Sarr fa la nekkoon. Déthié Fall fa la nekkoon. ak ñeneen ñu bëri fa lañ nekkoon. donc ñooñu tet yooyu buñ la bàyyee kon bu doon dafay sotti duñ la gaaw a bàyyi. te ñooñu bu mu buñ ko bàyyee nag sentir na ko. Mm-hmm. parce que tey kenn du werante Thierno Bock kii Abdourahmane Diouf kenn du werante vraiment xarañteem euh, Tahirou Sarr yaa ngi dégg moom tamit temps yi. Hmm, mu génn mm-hmm. foofu créé fam coow li am na. Mm-hmm. gis nga Déthié Fall ah du point de vue politique. compétence macha allah. donc pour dire que léegi ñii nag ci élection yi dafa am ñoo xam ne fii la ñuy jaaree pare ci politique. vraiment euh, waxoon naa fi si laa ñuy reetaan ma ne ko. président bu dissoudre assemblée nationale bi le treize. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni moom nañu lekkaale seen salaire yu mujj balaa ñuy installer législature en tant que député parce que dootuñ ko doon. te mm-hmm. effectivement am na ñoo xam ne dootuñ doon député ci Sénégal bi laa yow mi diin. Mm-hmm. c'est fini. maintenant Sonko faiseur de roi. effectivement moo tax. Euh, ñi doon wax ne Sonko falumaak yooyu yëpp. nangu nañ ma tooñ Ahmed Aïdara tu penses que Ahmed lu mu doon wax. Euh, suul gaa di ko teree xëy moo tax mu gagné vraiment. tu penses que mm. loolu moo mu gagné Guédiawaye. Mm. loolu taxul mu daaneel Alioune Sall bu loolu kese du gagné te moom xam na ko il a gagné parce qu'il y a eu Sonko qui a dit oui c'est moom au moins lui moom gis naa moom daal moom sax gis naa mu teel a nangu ne su ma nekkee maire grâce à mais beaucoup sont devenus mon maire mais c'est grâce à sëñ bi. Mm-hmm. man député yi liste suppléant yi. man ñu bëri xaw ma leen woon Pastef maanaam Yewwi Askan Wi mhm. ñu bëri xamuñ ma leen woon mais je les ai connus à travers justement ñi nga xamante ni moom mooy ñu éliminer seen liste euh, titulaires yi mhm. ñu indi suppléants yi moo tax ma xam leen mais ñu xamoo leen mais malgré xamoo leen mais dañ leen fal mhm. léegi nag kooku yow amoon sens sax nekk candidat mais il a fallu que la liste titulaire baaxul nga ñëw après ñu xamaale la ci ñu boteel la nga am nga nga ci ko au moins ci quatre-vingt-dixième député nga créé benn lu ñu tuddee euh, majorité relative. Mm-hmm. pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal mu am à l'Assemblée nationale l'histoire d'une majorité relative musul am. Mm-hmm. lu fi am mooy majorité confortable écrasante mais fii musul am majorité relative. Mm-hmm. donc te 2022 la am même fii ñu ngi ko doon séntu en mais amul. parce qu'on parlait de cohabitation politique parlementaire. Mhm. donc vraiment euh, à un moment donné il faut accepter. Mhm. Sonko maître du jeu. ah loolu moi je confirme c'est le cas pour l'instant xaw ma mhm. suba mais tey c'est loolu la en réalité c'est ça. et moo tax euh, ñiy wax ne yaay borom Kaolack wala borom Thiès wala borom. borom Dakar borom Dakar c'est en réalité borom Dakar c'est Sonko te mooy wax ji en réalité borom Dakar mooy Sonko léegi nag Sonko puisque moom il n'est pas de Dakar. in il ne il ne il à Dakar donc si un élément euh, bu mu tànn euh, nekk na fi day jël kasketu couronne borom Dakar mu jox ko ko. et mhm. kooku il devient d'office borom Dakar. Mhm. donc moo tax a Sall bon par l'intermédiaire de Sonko. Mhm. il est devenu yow mi bu la tànnoon nga nekk borom Dakar. <laughs> Badou ah oui <laughs> pour l'instant xaw ma suba de waaye jamono ji moom bu la taam nga doon ko. ay je vous êtes sur euh, digital. Euh, ñu ngi ak euh, Demba Thioune mais Thioune la sortie de Ismaïla Madior Fall euh, Ismaïla Madior dafa mel ni toogoon na peut-être mu ngi génn di wax fu mu toll nii mu ngi wax li mu wax nee na la dimension personnelle du premier ministre sur les résultats induit un changement dans le fonctionnement du régime politique du régime politique inédit celui qui a la faveur des électeurs n'est pas à la tête de la magistrature suprême. Dans un, dans un régime présidentiel, c'est une, une incongruité à corriger d'urgence par une conjugaison des recettes de l'ingénierie constitutionnelle et de l'art de gouverner. Il y va de l'harmonie au sein de l'exécutif et de la stabilité politique du, du pays. On rappelle que le Sénégal a un régime bi euh, bireprésentatif ou le scrutin présidentiel et le scrutin euh, législatif son d'égale dignité et légitimante pour le pouvoir euh, li muy wax bu dee mën naa ko teg ki mooy fi ñu toll nii constitutionnaliste yi war nañu peut-être jéem a régler situation bi parce que ki nga xamante ne euh, moom moo ëpp doole peut-être ci réew mi nekkul le président de la république loolu moom lan la ci yoon mën a def wala wala wax non xam nga euh, déjà bu dee politique ngay wax bu dee mbirum politique la ñuy wax ki ëpp doole mooy Sonko mm-hmm. mooy ci koo mën a teg nag même boo tegee paysan Diomaye ci wàllum politique ki ëpp doole mooy Sonko mm-hmm. boo indoon opposition ku ëpp doole mooy Sonko mm-hmm. donc kon mën nga jàpp ne ci wàllum politique jamono ji ku doole mooy Sonko maintenant boo jógee ci arène politique dem ci cadre institutionnel képp doole du Sonko déedéet. waaw hmm. ah, déet mënu ko mënu ko doon nag sëñ bi bu dee ci cadre institutionnel ki ëpp doole mooy président Diomaye. d'accord Sonko mënul dàq Diomaye mais Diomaye mën na dàq Sonko supposons kon moo ko ëpp doole. Hmm. ci wàllu ci cadre état Sonko. mënul exiger jomaay mu def dara waaye jomaay mën na ko exiger mu def ko wala mu jóge foofu te Sonko mooy numéro deux ci wàllum architecture quand je dis mooy état quand je dis je pas l'état mooy mbirum gouvernement bi. Mm-hmm. affaire politique maanaam mbirum parce que le gouvernement a une fonction politique. Mm-hmm. donc après Diomaye c'est dans le pouvoir exécutif je veux dire. c'est Sonko léegi bu dee si dans le cadre institutionnel. ki nekk ci kaw te décision sut ñëpp kenn kese la muy Diomaye yaa ngi dégg maintenant bi dee mbirum politique nag mun nga comprendre que ne ki waroon nekk président mun nga jàpp ne daa mel ni moom lañu am parce que réalité bi aussi mooy loolu réalité bi mooy Diomaye soo gisee mu nekk président c'est parce que li ñu misé woon ci Sonko ñu dem ba loolu mënul nekk ñu gis ne candidature am bi dañ ko hypothéquer dañ ko faagagal te boo seetaanee da ngeen di xaar ba 2029 boo leen amul candidat mm-hmm. da mel ni waa A waa PS PDS lu leen daloon 2019 mm-hmm. amuñu candidat ñu ne c'est tout sauf Karim Karim n'a pas été candidat après ñu ñàkk mm-hmm. kon yow bu nga bañ a am même syndrome boobu da fexe ba si c'est pas Sonko c'est un autre léegi nag kooku bu faloo day falu sur la base de l'espoir bi ñuy misé woon ci Sonko waaye pour ñu mën a bañ a ñàkk rendez-vous boobu rendez-vous 2024 bi il faut ñu jël yaakaar boobu sot teg ko ci jomaay léegi nag bu dee ci wàllum politique da ngay xam ne doole ji di jomaay doole ji sonko la waaye nag doole jooju moo xamante mooy doole politique nga yóbbu ko ci jomaay mu fal ko bu ñu ko falee ba pare bu dee dañuy teg ci institution yi doxal état maanaam sonko ëppul doole jomaay mënul nekk mm-hmm. un premier ministre ne peut pas être plus fort de la c'est pas possible mm-hmm. mënul ne parce que rôle yi bokkul fonction yi bokkul d'ailleurs foofu sax warul nekk tiisanti warul toog nekk lu ñu compétition il a pas de compétition ici mm-hmm. le président c'est le patron loolu laa ko mën a waxee mm-hmm. le président da moom mooy définir la politique de la nation mm-hmm. Ousmane Sonko c'est un exécutant Ousmane Sonko day exécuter la politique de cette nation définie par le président de la République et il lui rend compte et mu sant ko coordonnel ma gouvernement bi xoolal donc kooku xoolal ma gars yi rek weesu na maanaam li ñu ciy jàngee mooy kon kooku joxul instruction président par contre le président mën na joxe instruction à son premier ministre mais son premier ministre ne peut pas lui donner des instructions. mënul nekk mm-hmm. donc foofu je pense que c'est euh, la constitution d'ailleurs règle na ko bu yaay la constitution règle na ko nee na le président nomme son premier ministre et non le premier ministre nomme mm-hmm. président premier ministre moo koy nommé. moo nommé premier ministre premier ministre consulte ay membres du gouvernement mu jox ko président président valide et après le gouvernement est formé donc foofu pour moi il euh, y a pas de confusion de rôle. loolu lan lañ euh, peut-être dafa bëgg euh, par exemple parce que li c'est inédit ah. loolu mooy dëgg aussi c'est inédit mosul am. mosul am waaw. Mm-hmm. mosul te li ko indi bokk na ci justice bu ñu xaw a bu ñu tordre le coup justice boo xamante ni. dañ ko def loolu loo xam ne waru ko def moo ñu yóbbu fii léegi nag puisque loolu am na te mënoo arrière te boo boo geddee ñàkk waaw ah, da teg li fi ne. nga tànn jomaay parce que boo tànnul jomaay sëñ bi doo tere élection am te élection bu amee sans yow mooy c'est fini pour toi jusqu'en deux mille vingt vingt neuf. Mhm. après toog fii di di jooy kon lii yëpp da koy ñàkk di kon lii am nii tey du am de. kon demaa bi kenn du posé wu de. Mhm. te loolu jamono jooju je dis bien ñi nekkoon ci opposition bi jamono jooju loolu lañ bëggoon bu ñu sañoon waa Pastef du ñu am candidat jamono jooju parce que bu ñu amul candidat mooy ñoom ñoo am chance pour falu wala Amadou Ba mu am chance pour falu ak que su boobaa da ngay xool rek mooy ñi fi ne kan moo fi tane fa kan moo gën <laughs> kan moo fi tane ngay jël. Mhm. léegi lu may waral coow li moo tax je pense que. Euh, les rôles sont définis en tout cas très bien définis. Donc, il continue toujours que la disqualification judiciaire d'un des candidats à l'élection présidentielle de mars 2024 et ses conséquences sur le fonctionnement du régime politique ne doit-elle pas nous amener, pour l'avenir de notre démocratie, à nous inspirer de la jurisprudence euh, qui a euh, d'il y a semaines de la Cour suprême des États-Unis ordonnant la suspension des poursuites judiciaires contre les candidats jusqu'après la présidentielle. Cette question ouvre, comme y invite la société civile, une perspective de toilettage consensuel des conditions d'éligibilité à la présidence. Euh, ba tey moom mu continuer ne euh, disqualifié bi ñu disqualifié kii di Ousmane Sonko ba mënta bokk ci élection yi euh, moo créé lii yëpp. est-ce que jotul nag vraiment bu dee sax am na ay poursuites judiciaires yu mën a am ci euh, kaw benn koo xamante ne bëgg na nekk candidat ñu def comme li États-Unis def leve ko peut-être ba élection yu romb mais fi ce moom daa war a xaar ba tey jii muy soog a jooy wala tollul woon koo xamante ne peut-être mënoon na wax ak Macky Sall ne ko li ngeen di def ni dinañu créer la ay problème ci kanam. mais mais dommage ce qui est dommage c'est euh, euh, loolu la tuddee mal placé pour wax. parce que disqualification judiciaire boobu bu muy am. ma mhm. nekkoon ministre de la justice. Mhm. man fii laa mos gis ci Sénégal te défendre naa loolu ba ñu bëri jàpp ne man ndax damay damaa nekk militant Pastef. déedéet mhm. mais mënuma comprendre par exemple un premier ministre un ministre de la justice boo xamante ni nekk ngaa yi constitutionnaliste nekk professeur de droit. ngay weerante ci contumace ngay weerante ci. contumace sérieusement contumace mm-hmm. ngay werante ci contumace code pénal bi leer code de procédure pénale bi leer leer leer leera leera leera ba article 316 xaw ma bon su ma juumlee ou 7 307 wax lu leer nañ ñi nañ loo xamante ni même xale bu déggul tubaab sa doom bi boo am 10 ans soo ko tekkilee soo ko làkkalee liiral ko dina la tekk wax lu muy tekk mm-hmm. ngay werante ci loolu naa noo waxul loolu mooy ñu ne la si le compte Max vient d'être arrêté mmh. ou s'il se constitue prisonnier la la décision tombe et la les décisions de justice tombent la contumace et nulle et cetera léegi mooy nga jàpp Ousmane Sonko nga ne jàpp nañ ko waaye di Ousmane Sonko. Mhm. kon moom il est toujours contumace ça veut dire que jamono ji bu dee logique boobu est-ce que xam nga ne bu dee danoo topp logique justice bi fi nekk maanaam lu mu fi waxoon kon jàppal ne Ousmane Sonko est toujours contumace wala xamuloo loolu jàpp bi. ah ba léegi diggante bi dañ ci dañ ci àtt nit. diggante bi dañ ko dañu dañ ci waxaat leneen dañ ci organiser procès ça veut dire que même Ousmane Sonko bi bu mu nekkee ci gaso bi. ñu ne non c'est pas Ousmane Sonko contumace qui a arrêté d'accord. Mhm. du moom moo nekkoon gaso bi. Mhm. ba mu génnee ñu libéré leen mu nekk ñu gagné ñu def campagne ñu gagné mu nekk premier ministre est-ce que dindi nga contumace bu dee da nga topp lu Ousmane Madior Fall wax. Mhm. dind woo ko. kon jàppal ne kon bu dee logiquement Ousmane Ismaïla Madior Fall lu mu wax kon jàppal Ousmane Sonko ba léegi compte max la compte max mooy xamante ni mooy koo xamante ni yaa ngi koy wër atte nga ko te nekk fii ci wàllum crime yaa ngi koy wër tegoo ko loxo loolu mooy compte max. Mm-hmm. léegi Ousmane Sonko teguñ ko loxo léegi anamu non sérieusement vraiment am na yoo xamante ni euh, caaxaan la. kon lii yëpp ñoom ñoo ko créé. non sérieusement caaxaan la bu dee da nga dem ci affaire Mame Mbaye Niang sérieusement caaxaan la. Mm-hmm. sérieusement caaxaan la li tax mu nekk caaxaan mooy c'est simple. Euh, la justice moo ne dañ koo saisir ci plainte boo xamante ni Mame moom moo ne dañ koo diffamer dañ koo injurier ba pare procureur yokk ci faux et usage de faux. Mmh. faux usage de faux ça suppose le rapport bi Ousmane ko wax ni dafa épingler Mame Mbaye Niang ci mauvaise gestion affaire Prodac léegi nga ne rapport boobu c'est un faux et Ousmane Sonko a de sa rapport nga yokk ko ci. Mm-hmm. nga dem àtte ko. par défaut d'accord nga condamné ko avec sursis mais sursis boobu soo demee ci code de code électoral condamnation par sursis boobu dafa am lu mu jur dafa obligé nit ki pour du nekk éligible mm-hmm. et tax rapport boobu nga ne existé wul c'est un faux rapport document c'est un faux document et ce rapport là yàggul dara fan yi passé jàpp nañ ci ñaari nit ñu ci kaso bi rapport mhm. boobu ñaari nit jàpp na leen Ibrahima Cissé ak Mamina Daffé ça fait même pas deux semaines ils ont été arrêtés pour des faits cités dans le rapport bi ñu waxoon ne mësul exister ba pare tuddee ko faux tuddee ko usage de faux kon vraiment est-ce que rapport mun na bañ a exister en 2018 ba pare exister lu daa mun nekk mhm. lu mënul ne et sur cette base nga sukkandiku ci condamné nit loolu mooy indi disqualification judiciaire et donc cette disqualification judiciaire fu mu jógee mais fu mu jógee cëslaay bi boo ko tegee ci dëgg rek mais mënul la mënul am. donc foofu même bu amoon tey perturbation au au sommet de l'État liée à cette. Euh, euh, disqualification judiciaire yow mi wax tey am nga ci responsabilité parce que loolu bu muy am yaa nekkoon ministre de la justice donc pourquoi tu laisses au président parce que le ministre la justice nag moom ak procureur ay nii lañ parce que le procureur de la République moom il il il il fait ce qu'on appelle il exécute la politique pénale du gouvernement donc lu muy def réeréwul ak gouvernement bi donc léegi yow nga nekk ministre de la justice loolu am si sa su magistère après nga génn un an mais pas un an et raconter quoi y problème si vraiment li ngay wax dëgg la si yow pourquoi waxoo ko woon depuis le début nga xam ne lii mën na jur lii suba bu ñuy gañee bu la waxoo loolu mais parce que tu croyais pas que dañuy gagner parce que yow yaa mos a wax ne Ousmane Sonko ne jamais président au Sénégal il l'a dit. Hmm. donc tu n'as jamais cru que il sera président wala keneen ku mu tànn day doon président. mais ko xëy na bu doon li ngay wax ni tey ça te vraiment que cœur également mettre en nga suuraale loolu ba yow loolu nga war ko waxtaanee au sommet de l'État ci kanamu ki jiiti réew mi ne ko lii nii buñ ci toppee ñu dem ba situation bi am ñii tànn kenn. kooku bu gagné bu Ousmane Sonko génnee bu ko nomee mën na jur lii ci boppu état lu tax waxoo loolu mi nga xaar bi la ngay wax lii y' a un problème y' a un problème y' a ce qu'on appelle un problème. kon lii yëpp ñoom ñoo ko y' a un problème d'honnêteté d'honnêteté intellectuelle dans ce Sénégal y' a problème d'honnêteté intellectuelle tu ne peux bokk ci ñu yàq dara vito remplacement tur ñëw di wax vito. ah li ngay gérer day yàqu na waaye léegi nii ni ñu koy doxalee di yoon te pourtant man bu ñu koy yàq man maa ko préparé c'est quoi cette histoire y' problème. mais kon ci nit ñi tooñ nañu de. tooñ nañu ah am na woykat bi de tooñ nañu laa xaw ma lan. Hmm? woykat bu ab gite xaw ma. <laughs> tooñ nañu laa. dañ <laughs> ko mais dañ ko tooñ sëñ bi. <laughs> Ah, mais kon lii li ñuy ragal ci ay affaire Ousmane Sonko bu amee problème ak Diomaye ay Mamadou Dia kon lii yëpp ñoom ñoo ko créé. mais loolu ah, mënul nekk sax. waaw Ousmane Sonko ak Diomaye. loolu mënul nekk sax mënul nekk coow mun na am mais tey tu penses bon naturellement Sonko ak Diomaye dinañ ñàkk déggoo ci dara. Mhm. loolu mënul ñàkk. Mhm. dinañ toog bon ñu waxtaan dara duñu ñu déggoo kii dem wala kii ni dem après ngeen ñëwaat waxtaan loolu am na loolu mooy sincérité. Mhm. mais loolu bu dee dafa am ci suuf ci bureau yi sax maanaam boo waree def discours nga def conseil des ministres warul du feeñ. lu mooy homme d'état maanaam warul feeñ. warul feeñ ci kanam bi Sénégalais sentir ne premier ministre ak président ju man a werante nañ ci benn sujet. Mhm. donc ànduñ ci loolu mënul ne mënoo nekk nit ki ngeen di liggéey ba pare du am point yoo xamante ni da ngeen ci am xalaat bu wuute. Mhm. léegi nag la responsabilité mooy soo leen ci amee xalaat bu wute nga défendre lu gëm et après dina am ko war a tranché mu tranché ñu jël décision bu gën et après bu passer à autre chose. Mhm. loolu mooy responsabilité loolu mooy autorité mais nag. maanaam euh, ku mën di doon sooy sooy liggéey ay nit dina am sujet boo xam ne doon ci déggoo. Mhm. donc loolu je dis c'est pas la fin du monde c'est pas la c'est pas l'État aussi. Mhm. loolu c'est loolu richesse la. mais munoo nekk premier ministre lu mu wax rek président lu mu wax rek nga ne waa gong ah lu mu wax rek nga ne waa loolu laa bëggoon wax sax et cetera loolu du loolu réew. Mhm. donc day wax dara nga ànd nga jox ko saalaat léegi moom puisque président moom mooy le dernier mot lui mais Diomaye ki nu disait que euh, dañuy wax ne Ousmane Sonko amul ay pouvoir sax euh, pouvoir yi mu am dafa bëri mais pouvoir yi mu am sax bëriwul noonu euh, war nañu am tendance vraiment à yokk ay pouvoir premier ministre fii fii ci biir Sénégal il faut aller vers ça maintenant. waa mais mais je pense que ñoom nee nañ du pour mandat bi la ñuy wax yokkute kii boobu pouvoir di premier ministre su ma juumalee. Mhm. dañ ne c'est en deux mille vingt neuf bon daa loolu dégg naa. Mhm. léegi euh, premier ministre xam nga Sénégal bu ñuy weerante ci sujet maanaam bu ñuy wax weerante bu ñuy wax ci dualité sax au sommet de l'État mhm. balaa nga koy wax sax il faut nga nga nga définir lan mooy rôle président ak lan mooy rôle premier ministre lan mooy fonction président ak lan mooy rôle premier ministre mhm. léegi boo ko définiree nga xool ku ne sa rôle ak sa fonction est-ce que ñu ngi laalante est-ce que ñu ngi interférer mais moom boo ko xamulee mënoo wax ne rek parce que bu dee yow vidéo dañ ko sant génneel xaalis ñun la cuun yow yaay dépensé waa léegi nit taxaw fa ne cuun yaa ngi def lu jute war a def te xamuloo man dépensé wu ma te xamul ne yow dépensé woo man euh, euh, kii wu ma euh, génnoo ma xaalis mais il faut nga xam cuun lan mooy fonction am cuun mooy dépensé xaalis bi ko vidéo jox léegi loolu balaa nga naan cuun mu ngi def li vidéo war a def da ngay xam ndax cuun réelement lan lañ ko sant Mhm. donc premier ministre aussi lan lañ ko sant loolu il nga xam ko nga xam président aussi lan lañ ko sant léegi soo xamulee da tax a fi naan président lu tax muy premier ministre lu tax muy recevoir ambassadeur ci bureau mhm. fan lañ ko tere sérieusement fan lañ ko tere yow da bokk si dafa foo bokkoon mhm. léegi fi nga bokk ki nekkoon premier ministre bi nga nekkee ministre kooku da nga recevoir ambassadeur dans son bureau Mm-hmm. Amadou Ba a reçu plusieurs fois des ambassadeurs à la primature en tant que premier ministre du Sénégal c'est pas un souci. Mm-hmm. Boun Abdallah Dionne effectivement a reçu dans son bureau en tant que premier ministre dans des ambassadeurs. Souleymane Ndéné Ndiaye ministre d'Abdoulaye Wade a reçu des ambassadeurs à la primature c'est quoi le souci c'est quoi le souci président bu la santé loolu président mën na demander premier ministre mu dem teewal ko ci benn cérémonie internationale c'est quoi le problème il te délègue un nga dem. c'est quoi le souci fu ñu ko teree c'est interdit les premiers ministres bu demee Rwanda nga ne le président moo fa war a demoon fan lañ ko bind foofu fan lañ ko bind sérieusement fii ñaata réew la ñuy gis ne absenté na mais dafay yónnee ah, nga absenté dafay yónnee wa Ouattara est-ce que ñëwoon na ci cérémonie investiture Diomaye Faye est-ce que ñëwoon na. ñëwul dafa yónnee léegi kooku mu yónnee pourtant ministre la est que dafay tekki ne moom dafay defarul président wala dafay dafay jël. waanaam li président waroon def da koy def mais président bu ko santé moo ko délégué moo ko délégué ay pouvoir moo ko jox ay prérogative moo tax kooku boo ko laalee day mini ni laal nga président incident diplomatique lay nekk léegi nekk fi di werante ay ah, warul dem fi warul dem fële et ku nekk di def sa liggéey et puis bon mhm. vraiment loolu di baax. jaru ko daal vous êtes sur 313 euh, euh, euh, digital. Euh, lépp loo xamante ne vraiment ñu ngi koy euh, waxtaane c'est en euh, rapport ak li nga xamante ne moo di destiné li lay nga xamante ne moom moo di réew mi ñu ngi leen di ñaan peut-être ngeen di abone di activer seen i cloche de notification te xam ne 313 digital c'est